waxuma ci cuuraay bi kaw waaw mais loolu bëggoon naa la ci laaj waaw parce que bëggoon naa la ci laaj daf ma bi nga wax ci poson yi la bokk poson yi cuuraay yi ñuy utiliser xet mën na naqari ñàkk bon ci yaram te mën na neex te bon cuuraay du dara lu dul nga baxase ay produits chimiques yu bëri même bu dee seen xet neex na boole kook ay bant wala lu mënta doon taal ko lépp lu ñuy taal rek saxaar soosu rek pour ñun baaxul mais niñ koy taalee la wala taal bi sa boppam lépp luy saxaar rek te même li ngay def ci cuuraay bi produit chimique yooyu peut-être am na yoo xam ne nii ay diluant la ay solvant la mën naa boo ko nooyee mu gaañ la parce que fii gis nga ni ngeen defee mélange te souvent gën a jaxasoo rek gën a cher ak gën a yàgg des fois yi def cuuraay ñaan yii bi dañ koo nëbal un an parce que buñ naan dangay ngay def cuuraay waaye du saxaar waaw ah. déedéet parce que saxaar ba mënoo koo gis dafa sew a sew a peut-être ba mënoo ko teg mais mi ngi saxaar te li nga mënta teg sa bët lu mu gën a mën a sew gën a mën a dugg ba yegg ci poumon ba sa fond ba te booboo gën a bon ok waaw mu ngi mel ni diggante li histoire bi amoon oto diesel yeeg essence diesel bu njëkk saxaar si da doon bari ñu ni noonoo day feebar nañu wàññi diesel yi ndekete essence bi saxaar bi muy génnee particules yi ñuy wax doom yu sew yi dafa tuutee tuuti ba doo ko gis sa bët te yooyu gën a bon ci poumon. non foofu moom jax nañu taxaw parce que jigéen ñu bëri da nga naan non man de sax cuuraay léegi ni ma koy taali du sax saxaar mais kon mi ngi saxaar ci suuf te saxaar boobu nga dul gis moo gën a bon ah, loolu moom mën a taal te du am te du am am fumée des fois mu nekk fumée blanche fumée noire fumée bi sew ba doo ko gis mais peut-être boo amoon yeneen appareil man ñun def nañ ko toog nañu selon différentes système yu ñuy taale cuuraay jël suñuy appareil mais les la première heure là nii la particules yi yéegee c'est après lay commencé di wàcc te wàcc bi fan la wàcc sa lal la wàcc sa fauteuil bu poussière boo fëggaatee xam naa ne moom ak Issa moom ah. bés ni ko tey dootuñu taal cuuraay seen <laughs> am naan daal lu ci mënta nekk adduna ah. moom yamale baax waaw léegi pompe euh, parce que nit ñi da ngay jàppee lu banaan da ngay gis ñoo xam ne man du ma taal cuuraay euh, parfum chambre laay def da ngay pomper loolu tam c'est un produit chimique. lépp ay produits chimiques la mais maintenant c'est surtout que sunu dëkk yi dañ fiy dugal produit yoo du doon produit de qualité. c'est ça du ñu xool ndax produit bi dina gaañ ou pas néew ma day gaañ de mais comme xamuñu lan la loo xamul lan la moytu ko te yooyu yëpp xam nga pour lan la dàq xet. Mm-hmm. xet moo fi ne nga bëgg ko dàq te doo ko dàq da nga koy muur parce que da ngay jël beneen xet bu mën a muur xet bi nekk ci biir néeg bi pour muur xet bi li gën a yomb ci dàq xet mooy nga aéré. Mm-hmm. ubbil nga aéré xet bi génn je pense que moo gën a simple parce que neex-neex bi odeur bi ci bakken bi lay yem mais xamoo sa biir yaram vraiment lan la fay def.